lan moo waral sa teewaay. waaw je pense que a priori mënuñu xam nan la ñu gisee dialogue bi parce que démarré xamaguñu le contenu bi ñuy war a waxtaanee je pense que ci detu élection le président woote pour ñu waxtaan ci mais dañuy rafetlu ñu oote dinañ waxtaan parce que dama wax ni que euh, démocratie ak dialogue ñoo ànd ak waxtaan. Euh, Sénégal euh, dañuy wax pays de dialogue parce que loolu la ñu xam mooy chaque fois bu problème amee ñi ñu toog waxtaan ci. xëy na nag dialogue du panacée maanaam du mën a régler lépp mais am na ci problème yi nga xamante ne bu amee war nañu mën a toog euh, waxtaane ko je pense que réew mi moo ko soxla mais dialogue bii dafa wuute ak dialogue yi fi jaaroon parce que dialogue yi fi jaaroon c'est de manière volontariste maanaam dañu toog rek ni dañ toog waxtaan pour bii nag dañu am dañu nekk ci seleba yoon bi dañoo jëm fi nga xamante ni ci bunt bi la donc euh, ñu war a toog waxtaan pour indi ay solution waxtaan boobu nag dafa war a déboucher ci autant man jàpp naa ni kuy euh, ku ko boycotté jaloog bi gënul nit boycotté ko mais jàpp naa ni aussi ku fi ñëw tamit war nga wax li nga xalaat yépp ba ñu profité ci régler tous les problèmes yi nga xamante ne am nañ ko bu ñu ko mënul aussi am na yeneen voies yu ñu mën a utiliser parce que man dama wax ni que euh, problème bi ñu am bi ci gën a simple mooy problème mu date on a un problème de de de lu bari ci suñu lu ñu war a régler ci suñu situation politique maanaam ci condition de participation yi am na benn instant opposition bi yëpp dañ ñëwoon d'accord ñu euh, si le ministre de l'intérieur organiser élection yi am na benn instant ñu ne d'accord ñu le conseil constitutionnel woote euh, nu mu tuddati compter les parrainages donc bari na éléments yi nga xamante ni lu ñu war a mën a waxtaane la mais dans tous les cas de figure li ci ëpp solo man na du ko nëbb mooy bu ñu nee euh, xat na ba xat mais pourquoi ne pas euh, organiser un référendum sur la question parce que peuple bi la peuple bi ñoo soxla. waaye tey jii est-ce que am nañu temps def référendum ndax su fekkee date bi nga xam ne dañoo bëgg ñu def ko ci nu mu gën a gaawee. xam nga gën a gaaw moom gën gaaw sëy ak lépp a ci am gën a gaaw ak euh, maye doom ak ngénteeg jàng ak lépp gën a gaaw am na ci solo mais mu gën a baax moo ëpp solo parce que quand actuellement nii amul kenn ku la mën a indi une solution bu ñëpp d'accord moo tax man dama jàpp nii te loolu xel moom léegi la ma léegi la ma dikkee organiser référendum jàpp naa ni moo gën a gaaw organiser une présidentielle bu ñu mënee nag am solution bi nga xamante ni dina régler tout le problème moo gën xam nga fii dama man dama indi xalaat day baax ñi fiy ñëw ku nekk di indi sa xalaat mais li nga te comprendre mooy président de la république ku mu munti doon mu wootee nañ dialogue ngay du ma ñëw duma ci def duma ci wax te solution bi ngay indi du solution bu nit ñi mën a d'accord. waaye tey est-ce que gënul woon yomb rek mu tënku ci li nga xam ne loolu conseil constitutionnel wax. waaw mais xam nga loolu moom la ñu wax man dama dama wax ni ko bu loolu bu fekkente ni mën nañ ci am un consensus autour de ça moom moo gën man li gënoon tey mais ñu ñi nekk bitim réew gis nañ ni que c'est ce qu'on vit là dara jaru ko man dama jàpp ni demoon à des élections teg li ñuy teg nit ñi voté ñu jàll ci leneen moom moo gën mais dañu ñëw pour wax ay xalaat rek xalaat yi day wuute xalaat yi demee neneen mais ay xalaat la ñuy def mais jàpp naa ni tey man bu ñu mënoon a am solution wu dem élection très rapidement moo gën bu ñu mënoon a am élection bi nga xamante ni mën nañu am consensus yóbbu ci lee les 19 ñu dem compétir moo gën bu fekkonte nag yëpp mënuñu ko am il faut ñu delluwaat ci askan wi moo tax dama wax ni dialogue du monologue xam nga dialogue doo ñëw ñun la yow xalaatoo dara doo ko wax il faut que nit ñi xalaat yi nga jàpp ni sax du xalaat yu baax mais buy sa xalaat nga ñëw wax ko mais Sénégal dañoo dem ba nit ñi dañoo tàppit a wax seen xalaat parce que da nga naan bu ma ko waxee ñu critiquer ma da nga koy wax ñu critiquer la après nga jàll ci leneen mais moi je pense que toog waxtaan moom mën na am mais waxtaan na ko dëgg lal parce que ñi lay wax ni conseil constitutionnel euh, nañ ko def mais dangay wax ñeneen ñi ñu la mais conseil constitutionnel dafa arbitré li nga xamante ni mën nañ ci werante donc idée man idée bi ma ñëwoon ci bi may ñëw di dugg ci salle bi xel bi ma amoon bi ma toogaatee xalaat dafa soppeeku. waaye conseil constitutionnel xam nga dafa ne maanaam amuñu sañ-sañu soppi li nga xamante ne loolu lañ décidé woon ba pare léegi est-ce que lu gënoon yomb rek mooy ñu amal élection yi wala yow gisoo loolu ba tey référendum. non man gisuma référendum gisuma dara dama wax man li ma wax dafa leer dama ni bu ñu mënoon voté suba présidentielle njaar ci moo gën. bu fekkente ni mënuñu voter présidentielle ñu wut une solution bi nga xamante ni peuple bi dina délibérer mu jeex benn yoon ñu jàll ci leneen. mu nekkoon Maodo Malick je je précise que na nit ñi indi fii ay idée ak ay xalaat bañ a ñëw déglu président mu wax ñu tàcc ko alors que les tàcc yi sincèrewul nañ wax président li ñu xalaat parce que Macky Sall day jiite réew mais moomul réew mi ah, après tout. ñoo ko déggandoo mu nekkoon ki nga xam ne mooy Maodo Malick mbay moom nag joxe na li nga xamante ne mooy position moom nag li mu gis mooy ne jamono jii dañoo waroon def li nga xamante ne mooy référendum bu ko defee askan bi dal di bokk dal di euh, décidé li nga xamante ne loolu la ñu war a waxtaanee